semaine dalal leen jàmm suñu TV tey ñu ngi suñu quatrième numéro gëstu maan gëstu soo ko déggee dañoo nar a ñëw décortiquer lu bari ci wàllu nii waaw yaay maan tey nag ñu ngi ko biir golf ah ñu ngi biir golf génn ñu ngi golf ba léegi ñëw seet si yeneen new talent yu bees tak tàkk tàkk gars yi doy waar ñu leen waxoo yu dem boy c'est le deux yaay maan ñu ngi nii dem sama wedaana ah. yaay nañ ñu. jaar naa taw lépp ku leen jàmm mais bon. gis nga ne Nembi Pazi la from Golf Sud waaw créé bi nag William Boys la 2.0. yeah man kooku mooy Paul bu William Boys yeah man xam nga daw ma jokk si toog mu présenté wu. yeah aca gars yi bëgg naa bu baax waaw Nembi Touré la from William Boys 2.0 waaw dëkk Golf Sud mooy loolu noonu aca taf kontaan nañ trop. yeah man yéen nga gisoon na waaw waaye William waaye William Boys a ngi nii William Boys a ngi nii. zéro tout mais wala boobu yaa ma ah non jarul ñuy xaar ne nañu attaqué juste tàmbale émission bi kenn yaa ma mais mën nañu xam yu boys quoi la mooy yu dem boys ci yéen ñaar. waaw damay mën a toll ci loolu. yee yu boys boo ko déggee ça veut dire yu dem boys moom anglais la yu dem ça dem boys mooy ñaari boy lañ. ñaari boy saf sàpp kañ dañu may dara ñu raw sax Mbappé. i bàyyi li ngay mais loolu ngeen te ko fan quoi. ñaari booy saf saabu ko ci anam bu leer mooy loolu noonu. mooy il faut mun dinañ la wuy si quoi sant yàlla bu baax tamit sant góor bu baax mooy loolu noonu gëm nañ suñu boobu daal dans tous les côtés. loolu la waral ñu dem boys deux point zéro. man eh, ma jox si Paul mu sànni si tuuti kàddu. waaw ñu dem boys kii daanaka wax na léegi moom ñu dem mooy maanaam ay boy yu dem te deux point zéro bi maanaam moom waaw te ku ñu jàpp ne deux deux ba zéro waaw combat bi tas. mooy loolu. combat bi tas quoi. mu na. jeex wa kon yee maan yee mais mun naa Boys Tori. Hmm. mais euh, parcours Wreden Boys quoi. si Wreden Boys seen parcours. ah parcours Wreden Boys n'a pas été facile quoi parce que au début métti woon na trop trop c'était difficile pour nous. mais sant yàlla sant ko bu baax xam nga yàlla ci mbirum rek ndaw moom boo nekkee ci yoon da ngay jugoo ko daanu hmm. sant yàlla bu baax a baax baax baax baax parce que amoon na ay jamono pour ñu am son sax da ngay da ngay xoosu ba bëgg a dee mais jamono ji moom son sonal tuuti quoi li ñuy wax leneen kañ ay clip wala projet tamit instant moom sant yàlla bu baax baax baax. yee météo woon na boobu noonu ci kaw météo woon na boobu noonu quoi mais mënoon woon boobu météo woon boobu noonu la moo waraloon la moo waral météo woon météo woon na boobu maanaam noonu di ko xaw ba fii. waaw yu tar rek mais ko gëm yu dem boys dañu xosu di waaw dugg fu nekk pour lijjanti cet wee lijjanti wee cet pour mën a taxalee pour am sànq yooyu noonu mais jeex na tey. ndax instant bii nice waaw ñoo ngi si job beeg yooyu noonu si traité dañuy jàng si jamono jot nañu fekkoon nañu jàng pour nga am moyen pour génne sens day métti léegi faa nga dem waaw xosul waaw gën a xam daal bi bi daal bu partage yoo mooy loolu loolu doon booy ñu si biir tey waaw ndax demee. Eh, dafa demee mais mun naa am yéen Wiliam Boys quoi muy yow Tori mu ci yow Paul maanaam avant rap bi quoi yaa nekkoon kan yow Tori. yaa nekkoon kan avant rab bi avant ngay dugg ci rab quoi benn booy bu doon def sport quoi sport bu ñu daan def bu ñuy wax handball maa ngi doon handball Kër Massar Kër Massar handball club laa nekkoon après du tout bu may handball sax mais man rab dafa yàgg nekk sama passion quoi. dafa yàgg nekk bëgg-bëgg ci man mun naa mun naa wax ne dama ko judduwaale te ko quoi parce que dama doon dem ci benn di fay 500 di déglu ay son ay instruments loolu yëpp naan kañ laay kañ laay mën a way comme ñii wala rap comme ñii li ñuy rabee loolu lépp loo gis ambition la quoi mais xam nga yàlla ci mbiram rek nit ki moom dala tracé sa balaa ngaa ñëw ci biir àdduna bi quoi loolu mais yàlla def lu gën rek nit moom lu yàlla def rek da ko war a nangu ko yéen ama jox Paul Ngaye Paul mais man jotoon naa xam yow woon kan avant nga dugg ci rap njëkk avant prési bi di ñëw. n'est-ce pas Paul la woon. waaw que moo nekkoon Paul avant prési bi stop. waaw c'est man. Ah, ah. waaw da doon dugg si mbokk yi moom daal bëre. waaw dë waaw mooy football yooyu loolu daal la xamul quoi. mais rafet moom naa yëg bëggoon naa ko ndax waaw dama judd fekkoo fi ndax sama ñoom maam yëpp dañ leen woy waaw ma am ay tontu ay règlement waaw yàlla def nag ma doon nekk di. maanaam daal mooy bëri laa doon favoriser yooyu noonu dem ci mbabat yeeg yooyu noonu mais xam nga rek yàlla ki biram hmm. waaw te yàlla fii na ma xëy waaw kon nag mooy nangu waaw man nekk yàlla laay dem ba dóor la bër gars di ma waaw mooy loolu di dégg ay conseils maanaam yaa ngi xam daal ba yàlla def ci tey ñu si fii waaw kooku nekkoon buur

ñuy wax waxi kilifa leneen ak leneen. waaw yéen si yan euh, yéen a ngi wax tool yi nga xam yéen a ngi si yeneen projet mais yéen euh, seen projet ngeen nekk leneen leen gars yi ñu xam sur seen fans yi wala boobu. waaw daal avant tout ñoo ngi bëggee waa Morona waa Morona su Guèye li mu wax amuñu seen fay ak waa Fajaraas waa Morona nag kii jaasam ngox tëggal fulu ñoom ñëpp daal ñoo ñu bëggee ak képp ku ñu bëggee mooy loolu su mun naa tey. di ñoo ñu bëggee mooy loolu instant ñu si ay projet waaw naa mois bee passé at bee passé ñu génnee musique après seen kaloo wàllum corona boobu ba léegi gën a wàllu son suñu projet nekk si ay projet si ay clip ak tamit concert bu ñuy tëb Morona le 19 août waaw si ay projet yooyu ñooñu def ak ay clip yu ñu war a waaw si d'ici mois bii di ñëw wala daal nañu gars yi suivre suñu compte YouTube waaw ñu si projet Instagram bi dem boo ñu def si waaw mu ngi si ay projet yu dox yoo xamante ni bu génnee gars yi ñu si apprécier gars yi tamit ñu si kontaan mooy loolu. Eh, maa ngi ci yow ba léegi de maa ngi ci yow ba léegi. mais projet yooyu noonu quoi projet bi ngeen jotoon génne. waaw xam nga moom est-ce que mën nañu xam titre yi. waaw non. titre yi quoi gars yi titre bi lu jot lu jot yomb la tudd. Mhm. waaw premier bi intro mooy dix-neuvième siècle ay 500 personnes jamono fët Thier dafa la fët mooy MLK waaw ak kii yoonu hip hop. ak Baby Ice sama banana ak yàlla yaana ak verrier yooyu noonu la. ak tamit des suñu parti yow bu baax mu la ensemble mooy 500 moom si combat bi ndax tamit ñoo ngi tas affaire dafa mel ni ne gars yi am na seen benn bu mu doon jeew si projet bi la bokk bon je ne sais bi nag quoi mais mën ngeen leeral gars yi titre mooy li waroon wooye wooy bu si si si si waaw boobu passé na si projet bi la nekkoon mooy bébé bul dem quoi moom moo nekkoon bébé de yaa ma gën a xam son boobu lañ génn woon suñu deuxième son loofu moo nekkoon noonu quoi mooy bébé bul dem moo génn lu xam nga rek mu xaw a ne son nii rek mais am na yu gën a garaaw yooyu noonu ci biir yàlla nañ yàlla may gudd fan. gën a fekk dafa mel ni son boobu ngeen lancé euh, projet bi. waaw non son boobu lancé wuñ ko projet bi sax son boobu ci biir projet bi avant projet bi la la nekkoon quoi. ok mooy loolu. moom ci ci bi. moom ci ci fajalaas bi tamit. ci ci fajalaas yi ma mën naa xam kii waaw waaw yi dem booy seen. noo leen dundee game bi nii actuellement quoi game bi noonu la koy dundee. ah gém bi yow Tafa yaa ma gën a xam gém bi xam nga lu fi nekk sax gém bi moom dañuy dund comme gars yi ñuy dund rek mais nga leen tegu ci yoon quoi nga leen a nite ci ci biir maay mooy lool xam nga gém bi da tas jàppal fii bàyyi fii waaw ki moom boo yoon du am na ñu bëgg am ñu la am ñu lay fexal pour nga dugg ci kàmb mais mooy loolu noonu di gërëm suñu yaay suñu papa yi baax baax baax parce que. seetaan nañu benn yoon quoi ñi ngi encouragé mooy loolu noonu dañuy dañuy moytu loolu yu bëri bëri bëri bëri parce que ndaw moom dafa doy waar quoi boo dëngee rek waaw mën nañu wax ne yow yàqu nga surtout nekk si yoonu musique dafa doy waar bëri ay tàng quoi mais sant bu baax rek a ci côté côté parents yi nga noonu koy dundee ak seen waa famille ci si au début moom waaw mooy loolu noonu xawoon nañ di ko nax saali nii mais après dañoo dem ba xam ne ñu loolu suñu bëgg-bëgg la quoi nit ki moom xam nga sa doom bu bëggee indi da nga ñi génn son sax ñëw ne père tey son bi déglu waaw mu ne ka ngeen di siiw diñu diñu mbala naa ka ngeen di feeñ télé waaw chaque jour dañ leen naan yéen ka ngeen di siiw mais yàlla baax na daal alhamdulilah tamit am nañ papa yi mun nañ comprendre ak yaay yi nga xam mun nañu comprendre quoi parce que nga nekk jeune bëgg musique mooy loolu noonu tegal nañ la ku tàbbi wala yi mais sant yàlla bu baax daal. yow baax na jàll si Paul mais Paul noonu la ñu dundee rab bi ak jàng bi ak école bi quoi rab bi école noonu la koy dundee. waaw gis nga de yéen sax mu ni moom ñoo démissionné école bi man maa ngi bàyyi classe première tur yi moo ngi bàyyi classe seconde échange waaw mais rab bi moom métti woon na ba léegi nii sa tar na mais dañuy ànd ak gëm-gëm rek ak muñ ndax nit moom nit moom boo nekkee si mbir moom da ngay moom mu ak tamit gëm-gëm moo tax tey ñu yegg si ndax tamit dégg wax bu nekk waaw ku nekk ñu la jéem a faral nga xam ne game te tamit bi sens quoi waaw sens la des def sa son gars yi ñu ne la noonu nice suuf ñu ne la nice yow daal li nga ful rek ngay def quoi. après loo si am nga jël mais na nga ko ak nag job bu carré ak job boo xam ne carrément bu bu xasee ba génn gars yi ci mën a gis suñu bopp gars a apprécier moom loolu laa gis génn te génn bi tamit instant yii tar na boo xamante ni moom boo àndul sa conscience tranquille ak bon ñaar ak boo amul expérience quoi doo si génn mooy loolu. mais maa ngi ba léegi mais rab bi rab bi est-ce que am na rab de métier de. non rab de ba à part rab bi quoi nga si leneen ci leneen loolu di yëngatu. waaw moom laa la wax sànq moo tax ma ne isaan ñu ngi jóg dañuy xëy bu tërkee wàcce mooy loolu di jóg jóg bu métti. waaw la ñuy jóg ndax tamit jóg boobu noonu moom moo ñuy may wéccet wala moom moo ñuy may benn somme boo xam ne dañu mën a dundee kii wala dañu mën a egg suñu projet si rab bi quoi ndax tamit nit ki boo nee rab bi rek laa yaakaar toog fi nga toog ndax yow tamit doo xam kañ lay siiw loo xam te ne kon tey mu mooy rab kañ la lay jox mënuñ boo xam ne dina mën di teral père beeg mère bi léegi fan yow nga am job boo xamante ni yow si ngay basé de trop léegi après rab bu baaxee nga xam ne loolu la ndax góor moom moomu mbir kese da ngay fii jàpp fee jàpp bu si xale ñëw rek waaw nga nekk si. vraiment ñun ñu moom mooy loolu. naa ne. maanaam waa William Boy ñu ngi ci label wala nekk ñu ci label. si William Boy moom instant bii nii du mën sax fen pour dire la vérité William Boy nekkagul ci yoon nekk label quoi parce que ñu ngi job quoi ñu ngi job gisaguñu label la mooy loolu noonu mais ñu ngi job lu carré tamit ba ñu ñu dugg label tamit mooy loolu noonu mais dañoo gisagul lu ñu arrangé quoi buñ ko gisee rek xëyul quoi. gisaguleen gisaguleen label euh, gisaguleen label mais li ngeen dem moo tax label yi ñëwuñu wala je ne sais pas la moo tax ma en général man parce que bagage bu ma dégg fii nii nii nii mais label yi waroon nañ mënoon daw ñëw si quoi lu waral loolu. si non xam nga tamit tey jii nii ñun moom dañoo nekk si game bi mais ñun sóoraale wuñu label ndax mën naa mën naa wax ni que label da lay jàppale si benn côté mais. si benn parc waaw mun ngeen tàllal ndax label tamit tey jii mën nga fa dugg fekk fa yeneen nit yoo xamante ni maanaam label daal nekkul bokk sa bopp daal foofu noonu si benn côté gars yi ñu la taal ñu la jàppale mais day métti. mais balaa ñoo nekk si label carrément ñu loo xamante ni que carrément tey jii bu ëllëg jotee waaw ñu ne ah ñu dañoo prouvé lii waaw ba label ñëw ñu naa xam la mooy seen moom fin quoi loolu mooy seen mot de la fin ak sound yi tey tey ñeneen keneen ku leen xamul su leen bëggee découvrir quoi fa la ñuy jaar pour mën a xam waat yu dem boys si Wida Boys moom ku leen bëgg a xam wala ñu dugg si compte suñu compte yëpp Wida Boys compte YouTube bi mooy Wida Boys 2 point 0 W 2 I e B O Y Z nga def espace def 2 point 0 loolu mooy suñu compte YouTube boo duggee Instagram tamit loolu nga fay fekk quoi. suñu mot de la fin moom mooy ñu wax gars yi ñu dem découvrir parce que ñu suñu bopp wala jaayuñu suñu bopp mais yàlla talent quoi am nañ talent bi te instant gën naa kuñ teg moom dañuy xawma la sar sax mais dañuy def lu ëpp loolu noonu mot de la fin mooy ñu waajal festival bi tuddeetuma ko sax concert quoi parce que ñu ngi waaj festival Morona to Guera concert bu mag mooy loolu noonu y a plein de surprises quoi ma wax gars yi tamit ñu wéet ko le 19 août incha allah. yàlla may tala feke di bëgg bu waa Morolan yëpp parce que ñun amuñu seen fay quoi dan yëg te nit ki moom bu la yëgee da nga ko war yëg di gërëm waa Faja wa golfu wa Intecat wa yeneen secteur yëpp gars yi ñuy bëggee fu nekk kañ di la bëggee yow ngi taf ak wa May TV mo lo jàpp ngeen ci combat bi quoi. ñu leen di bëggee daal vraiment mais may leen gars yi yow mooy soo xam ne wala yi ya, mënoon tëjee yow boobu. si wala. Ya, <laughs> gémbe boole hypocrite moo tax mënatuma am xarit tey dangay zone su nga rouge non gémbe dafa tar ni fi nit ko koo gën a wóolu tey moo lay war adduna ba bëri tiis moo tax dañuy tuur rongoñ yaay ñaanal ma rek sa doom ci yoon xam naa ne bis dina tekki dinañ ko gis ci télé yaay ñaanal ma rek parce que sa doom ngi ci yoon xam naa ne bis dina tekki di ngeen ko gis ci télé yi yee mais TV sama télé émission dinañ ko kal bañ bañ gars yi. yaay maanaam gis nga de non ba maire bi xaar ko tuuti si kanam tuuti di nga ko gis si télé. waaw ah, incha allah mais war bokk joxoon gars yi leen ñu mën a. voilà waaw man waa Touba moom mooy bëggee gars ba pare naka moom bëggee na naay sax ñu ma war a bëggee moom la bëggee maa ngi bëggee aussi tam waa moom naa parce que taaf ñu am seen fay. ñu ñu am ñu seen fay. muy conseil rek mooy lu munti xew gars yi ñu ciy jàpp lépp tamit kon ni nga ko waxee rek nekkul conseil léegi festival la festival la boo xam ne ñëpp koy waaj te am na

formateur vert formateur mais bu mun a firi seen game eh, ay ko foog ni game bi dafa tigo danga yor orange yaay maan yaay dina fay demee ah. war a boog mais war a boog mais di wax gars yi di wax gars yi abonné leen abonné leen ci Mik TV bi xamam pour mun a jot ay yeneen bagage mais war a boog mais di bëgg tamit di bëgg ku nga xamante